Mikroof أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم الهادي لمن يشاء من ذوي العناد ثم صلاة الله والسلام على الرسول حبه السلام wa ala alihi wa asxaabihi tayyibina tahirin <clears throat> wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin السادة العلماء الأئمة الأفاضل الإخوة والأحباب asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. في هذه المناسبة الممتازة من شهر ربيع الأول من كل عام يبتهج الوجود بأسره وتحتفل الأمة الإسلامية في مختلف أرجاء العالم باستعراض ميلاد الكرامة الإنسانية ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك شاء العليم الخبير أن يخرج إلى هذا الوجود نبيه وصفيه وحبيبه سيدنا محمد الفاتح الخاتم نبي الرحمة الكبرى والأخلاقية المثلى فتح الله بمولده خزائن رحمته وكنوز خيراته لإنقاذ البشرية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول شيخ الحاج مالك رضي الله عنه محمد خير xayru mabuusin xawaa sharafan baabul ilaahi li maadil xalqi wal aati والرسول الذي عمت رسالته كل الأنام بلا شك وريبات في مناسبة هذه البهجة الكبرى أيها الإخوة والأحباب تتشرف مدينة تواون باستقبال حضراتكم في رحاب هذه الحضرة المباركة التي تمثل مركز الإشعاع الروحي الأعلى للطائفة التجانية في هذه البلاد ونعرب لكم باسم الخليفة شيخ أحمد التجاني سي المكتوم عن شكرنا العميق وامتناننا البالغ بحسن حضوركم ومشاركتكم إيانا في هذا الاحتفال الكبير الذي إذا ذكر فثم تذكر معه جهود شيخ المصلح المجدد الحاج مالك سي الذي بهمته العالية ونظرته البعيدة الصائبة وحكمته الفذة أرسى دعائم الإصلاح والتجديد على معالم واضحة من التربية والتعليم wa tasqiifi wa tawjiihi wal irshaad fa yuqarriru mabda al ixtifaal bi mawlidi xayri lbashar ka akbari xadasin diiniyin fi madrasatihi lmubaaraka mutawaxiyan jacalahu manhajan tacliimiyan tarbawiyan wa tawjihiyan wa fursatan dahabiyatan lan tafuuta li rabti al-ahbaabi wal atbaaci bi siirati saaxibi dikra al-qudwa al-akram wal aswad al-acdam camalan bi qawlihi tacaala wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana fa tawalla allahu iblaaga dacwatihi ila jamici alquluubi wa kataba lahu fiha alqabuula wa quwata altaasiir alamru alladi jacala annaasa fi kulli xatbin wa sawbin yafiduuna لإحيائها في هذه الحضرة المباركة التي تبقى وآثارها خالدة في ذاكرة التاريخ وفي ضمائر الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe mu ñu ngi leen di ziar ci guddi gu tedd gi di guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydi El Hadji Malick saxa sosal ko ko fii ci Sénégal fasal na ko ba lépp di yàlla am ci itam ndigal ndax am na loo xam ne ku amul ndigal mënuloo ko fi la daan dajeeg taalibe yépp di waxit ni su ma sañoon ku ma yaakaar su jotee nga fekke ko ndax mag mu amul lu dul génn dëgg di ko wax ci génn guddi cim at su sañoon ku mu jaboote daa ko fekke yàlla tàbbal ko ci xol yi yi bu jotee kenn dootul am jàmm maa ngi jëm gàmmu Tiwaawan maa ngi jëm gàmmu Tiwaawan eh, doon ko defe ca façon ba mu ko doon defe ba mu fi jógee teg ko ci loxo xalifaam Cheikh Seydi Aboubacar Sy moom tam mu ànd ak rakkam di ko doxal di ko doxal ca na ko Maodo doon doxale am ci nag itte bu kawee kawe ba bu masaan jot ñun kenn du ko ñemee jege ndax dafay bëgg rek ñëpp seen ité di gàmm gàmm gi passé leneen loo ko wax mun ni ah waaye yow danga nga xamul ni ci weeru gàmm la nekk da ngay nekk ba gàmm gi passé nga door a wax seen waxi caaxaan yooyu di dajale njaboot gi di leen def ay commission moo ko daan jiiteel boppam commission bu nekk mu wax la li nga war a def magi Seydil Hadji Mali yëpp di ko fekk ci pour ñun booba feet la pour ñun su saxaar teeree booba dem waay amul bu dul saxaar su teeree mag ñaa ngi jiitle si kër si jolli tabarakallah ñoom ñëpp kenn ñemewul gàmmoo fenn walla ci sa kër lu dul gàmmu Tiwaawan dafa paase ñoom ñépp ñu ngi daan dal fii ci kër góor gi Madun Mbay Saar ñoom magee njareek ñoom alaaj Sàmba Ngotiloog ñoom alaaj Abdu ñoom Ngunta Jóob mag ñooy ñëpp bu ñu wàccee saxaar sa taalibe yaa ngi leen di topp di sikkar loolu loolu ñun xale yi ñu daw topp ci di seetaan ndeysaan mu nekk feet pour ñun moom itam amatul benn jàmm lu dul lool ah lu ko def ba jóge fii Euh, rakkam ju baax jee ñëw alxaaji abdul aziz moom itam jaar foofa euh, am ci itte lool di cee dem sax ba moom doo war a xam moom mooy kilifa gi walla du kilifa gi ndax wàcce gu mu wàcce boppam ànd ko njaboot gi du mën a muñ sax woy yi waaw day ànd ak ñoom sax di mujj di woy ndax sawar rek nekk ca loola ba yàlla dogal mu dogal ci moom sëñ Mansour si borom daara ji ñëw moom itam noonu itti rek itti guddi itti bëccëg su jotee bàyyi na soxlaam yépp ñëw Tiwaawan ñu commencé ak moom ñu ngi ci burdu ba dama daan révolté sax léeg-léeg léeg mën ko sëñ bi xanaa burdu bi mën nañu ko bàyyi mun a xanaa yaa koy bàyyi waaye mën de duma ko bàyyi ndax mettit gu mu metti dem beeg dellu si bi dikk bi dem dellu si tët jaraa yi fii ñoom mbay dondo ah léeg-léeg cheikh ba ca Dakar fekk ko ca ñëw premier jour ñu di ko teeru ci buntu kër gi mu wàcce oto ñu jël bagage yi ñu ngi xool ndax walis yu bari ñëw naam walis yu bari ñëwul ñëw léeg-léeg mu dem fekk ko ci jàkk ji ñu àndundoo burdu léeg-léeg mu ni ah bàyyi leen ko yi fa mbaay man tey duma dem burdu di ca dem di ca dem ba mujj mu bàyyi ko lépp nekk Dakar ah, ba yàlla dogal moom itam li ci dogal mu ñëw première gàmmu daaw la woon mu ñëwee ñun ñëpp ñu ngi préparé ay néeg di pomp di nettoyé di nekk mu ñëw waxul dara sëñ Babacar Si Mansour ñëw ci man ni ma gi nag ma ne ah xanaa ñu toog déglu rek suñ jikkee ba bisu gàmm gi te waxul dara ñu ñu ñu dem ci jàkk yi rek li mag ñi daan wax ñu wax ko kooku moom kenn dàqunu ko yeneen ci fii la jaaral nag lii la defoon nag lii la yenn woon ah baax na boog waaye dogal bu muy ne gannaaw ëllëg wala bi ne tey la buur di jeex mu doon ni ah waaw doxal leen ko te si bisu gàmmu ga yaag Xaaji Malik Abdul Aziz da ngeen ànd dem ca barab bu Sëñ Babacar te nga bàyyi ko Pam Malik ak Abdourahman doomam la ak maam As mi ma tudde Seydi El Hadji Malick naa leen booleeg Pam Malick ñu dem fekki xaajim eh, Serigne Babacar Mouhamadul Mansour ñu gàmmoo foofu ndax ku may dimbale daal man nag ma dimbalee njaboot gi nekk benn loolu laa joxe ci ndigal ma woo Serigne Babacar Sy Mansour woo Maodo wax leen li mu wax ñu ni sami'na wa ata'na fii këru ndigal la bu ndigal jógee rek dañ koy exécuté ñu def ko daaw taalib yëpp bég taalib yëpp kontaan xool yi sell yëpp def ko feet ren it kazalika démb ci ngoon la mu woo ni ma ah waaw dafa mel na ëllëg la guddi gi de ma ni ko waaw mun na ngeen def ak burdu wi ma ni tubaarkal la yëpp dox na ci jàmm ma kon nag ngeen def ko ni ngeen ko defe woon daaw rek dégg naa xaaji Malick ma nga biti réew ma ne ko waaw ma kon nag na gis sëriñ Bay Abdul Aziz mu ñëw ca barab bu turandoom lu su ñëwee nga bàyyi waxtaan ak njabootam nga waxit nga waxit sëriñ Babacar Mansour li ko Pape Malick dañuy ñëw na mu ñëwoon daaw ànd ak Abdourahman ak maam As su ñëwee wéttali ko ba ba muy àggal la muy def ñu dellu si ah, tabaarkallahu loolu la ñu defe Baay Malick bi muy laate ñëw toggal nañ ko reer waaye def ni maa ngay reere ji ci sëriñ bay wàcc fi suñu reer dem reere ji moo ñi mu àndal ah ñu jox ko alalam ci ndigalu kilifaam te itam sax dama wax léegi ni jot na ñoom ñu bàyyi leen ak gàmmu yëg prix yi te di leen déglu ndax koo ci déglu rekk jàngaat kon seen alal la te nit dana àgg foo xam ne mooy xam boppam nag gis ngeen sama baat bi ni mu xoddoo <laughs> leeratul xale yi su may wax ak ñoom du ñu dégg li may wax mantam bu ñuy wax ak man du ma dégg ndax sama nopp yi nga gis ni kon nag kooku moom moomatul xanaa dem ci mbooloo di wax ko defee nag kon moom mi ngi nii di rakk di xarit mais di collaborateur mais di ku sell nag waaw waaw xamit li muy wax ak li muy def na la ko yàlla defal ci barke maamam su ko defee nag kon ñun du ñu def lu dul jox ko euh, waxukaaya bii ñuy waxe mu wax ak yéen li mu bëgg a wax ak yéen ñu wax la rek ni la yow la yàgg sa njaboot nu la neex naawe xabiidi bi xayrin asfiri asaudat bayri nu la neex rekk naawe si yal yàlla guróo ñël sa fan te musal la ci ndok yépp ci sa barke bàyyi sa barke maam salaamu aleykum wa wa barakaatu

أجرا غير ممنون بشرى لأخي بها هذا الورد سالكه من على